dal leen ak jàmm ci AGT bi leen di jox xibaar yi wér te leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. daleen ak jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp muy AGT News Ousmane Sonko tey mën nañ ko méngale ak phare bu démocratie fii ci diwaanu Afrique. fii ci diwaanu Afrique bëri na lool ay leader politique Ousmane Sonko dafa fenk ci kaw ñu mën ko joxe comme exemple ndaxte dafa wane résilience bu am solo waaye itam xam bëgg-bëgg askan wi rawatina cofeel gi nga xam ne am na ko ci réewum muy Sénégal leadership bi muy wane jur na yaakaar gu rëy ci askanu Sénégal romb na Sénégal dem ci Afrique gépp force de résilience bu Ousmane Sonko lu ne fàng la kenn du ko jiix ci misaal défi ak épreuve yu métti yi nga xam ne bés bu yàlla sàkk mu ngi jànkonteel ak moom ba mu duggee ci langu politique yi ak léegi wane na ko dogoom ngir askan wi am jàmm am dundu naat am soxla fecc ci sa poche faj ko daanaka loolu ñëpp xam nañu ko moo tax choix politique am ñëpp dañ ci gis seen bopp mu am ci réew moo xam ne langue politique yi sax léeg ñu nëpp nëppal ko ndax intérêt personnel yi nga xam ne ñoo ci nekk Sonko daal di feeñ ne ca kaw bés bi yàlla sàkk askan wi di wax ci moom. cofeel gi nga xam ne Ousmane Sonko am na ko ci réewum Sénégal wane na ko ci humilité bi nga xam ne ñëpp gis nañu ko. moo ne day gis nañu yeneen leader yoo xam ne daanaka seen bopp kot moo leen ñor Sonko moom dafay fàtte boppam di jiital bëgg-bëgg askanu Sénégal loolu tey bokk na ci li tax askanu Sénégal gis seen bopp ci kilifa gii di Ousmane Sonko gën a dëgëral kóolute gi nga xam ne am nañ ko rawatina dogal yi nga xam ne mu ngi koy jël bés bi yàlla sàkk. Sonko du leader politique cote daanaka éducateur la ci wàllum démocratie doxalinam dafay wane ne askan wi dañu war a respecter jeu démocratique bi nga xam ne moo am fii ci réewum Sénégal feeñal li war a nekk taxawaayu justice waaye itam jugement bi ni ki askan wi war a doxalee ubbi ay perspectives yu yees ku ne am ci xalaat war ko joxe. loolee di doxalin boo xam ne tey ñëpp gis nañ ci seen bopp mu mel ni leçon boo xam ne da koy jàngale lu weesoo frontière yu Sénégal law ba ci diwaanu Afrique. njàngale bi nga xam ne Ousmane Sonko wane na ko ci doxalinu démocratie bi fii daanaka du lu ñuy fàtte dafay des ba faw ci wàllum taarix jëf yi nga xam ne def na ko ci itam dañu koy nettali ëllëg mu génération yi nga xam ne ñooy mujjee ñëw mooy tax ñu am ëllëg goo xam ne ndaw yi dañ koy tabax ci wàllum résilience waaye itam compréhension de l'intérêt commun rawatina dogu ngir seen réew Sénégal ndax ci loolu dong la démocratie di sukkandiku ngir gën a fànk fii ci doonu Afrique AGT News. Ousmane Sonko, un phare de la démocratie africaine. Dans le kaléidoscope des leaders africains, Ousmane Sonko émerge comme un exemple remarquable de résilience, de compréhension de l'intérêt commun et de dévouement envers son pays, le Sénégal. Son leadership exceptionnel offre une lueur d'espoir non seulement pour les Sénégalais, mais pour toute l'Afrique. La force de résilience de Sonko est palpable, façonnée par des défis et des épreuves qu'il a affrontés tout au long de son parcours politique. Son engagement envers la cause commune et sa haute compréhension de l'intérêt public transforment ses choix politiques en instruments puissants pour le bien de la nation. Dans un pays où la politique peut parfois être éclipsée par des intérêts personnels, Sonko se distingue en plaçant constamment le bien-être de la nation au-dessus de sa propre personne. L'amour profond de Sonko pour le Sénégal se manifeste dans son humilité. Alors que certains leaders sont enclins à l'égocentrisme, Sonko préfère que sa personne passe en second plan, laissant la priorité à l'intérêt de la nation. Cette humilité teintée de patriotisme crée un lien puissant entre le leader et le peuple sénégalais. Renforçons la confiance dans ses actions et ses décisions. Sonko n'est pas simplement un leader politique, mais aussi un éducateur dans l'arène démocratique. Sa méthode novatrice de forcer la dictature à respecter le jeu démocratique en mettant la justice face au jugement du peuple ouvre de nouvelles perspectives. Cette approche qui place le pouvoir entre les mains des citoyens transcende les limites du Sénégal et devient une leçon précieuse pour toute l'Afrique. L'éducation autour des pratiques démocratiques de Sonko promet de laisser une empreinte significative dans l'histoire. Ses actions et ses enseignements peuvent servir de modèle pour les générations futures, façonnant ainsi un avenir où la résilience, la compréhension de l'intérêt commun et le dévouement envers la nation sont les piliers d'une démocratie florissante en Afrique. AGT News.